Zayd ibn Xaarisa al ansar yi ñëpp dañoo ndawee ci moom ba tax mu dëpp leen ngir ñeen mën ngeen a dëpp yi nett leen ni ci xir gu saxaaba yi xiroon ci lu baax ibnu Omar boobu ko nekk tuuti la waaye bi mu gisee yonante bi di dëpp xale yu tuuti yi jaraloon na ko sax di yuqamte ku ngir bëgg a njole bañ yonante bi dëpp ko ngir bëgg a bokk ci ñi dem kañ wax Raafi ibnu Xadij moom yonante bi bàyyi na ko mu dem moo kañ wax Samura ibnu Jundub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 mu ni booba ak kéefar lañu gën a jege ci ak ngëm yaquluna bi afwaahihim ma laysa fi bi jamono bu ne dañuy wax ci seeni gémmiñ lu nekkul ci seeni xol loolu mu ngi wàcce ci munaasaba boobu yi Abdullah ibn Ubay yi dëppe la yonte bi dasee ànd ak lu toll ci kon juróom-ñaar téeméer nit ñu waaj di xare ji ak lu tolloog ñetti junni nit ci seeni noonu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 waxtaan ak ñoom waar leen ni leen na ngeen xam ni nag yéen ñi yor drapo bi yéen a ko yoroon ca xareb Badar ba tax ñu gañalu ndax ka ko yoroon dañ koo jàpp dañ koo jàppaale muy an ko jàppoon ca xareb Badar mu wax leen loolu na ngir bëgg a jàqi bëgg bëgg seen nar ak bëgg ñu puusu ci njàmbaar rek mun leen bésu Badar yéen lañ joxoon drapo bi lanu dal dal te xare bu mu mën a doon la leen di dal ci ñu yor drapeau bi lay bàyyi ko benn nag ngeen aaral na suñu drapeau bi mbaa bu ngeen ko mën ngeen jox na ko ñu aaral ko suñu bopp ñu daal di mer jóg ndax suñu drapeau ñun danañ ko jox kenn bu leen ko ko bu ëllëgee bañ dem ca jotaayu daje ba da xam la nu ñuy doxe noonu yi la leen poussé ba tax na doxal nañ ca ak njàmbaare ndax ñoom ñëpp dañoo sax ñu di leen rey kenn par kenn bañ jeex tàkk ci xare boobu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 mu mel ni doxin woowee ba fii nu toll nii yéefar yi dañ koy doxee ci di dox ngir xàjjale diggante sàppee jullit yi ba booloo du mën a am te bu booloo mënta am rek lañ bëgg a saxal dana mën a sax muy xaaida wax ci arab ni farriq tas nit ñi bala nga leen a a sang da leen di tasaare ba kenn bañ a ànd ak moom dana mën a doon sang rek bala ngaa mën a doon loolu doxin la xamante ne yàgg naa am te fi ñu toll ngi koy dox léegi nag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 ñun juróom benn nit lañ ñoo xam ne dañoo tegaloo ku jóg rek am na kuy jaamaarloo yow daal di lay rey nam gën a gaawe léegi ku ñuy wax artaat ibnu surah bil daal di jóg ñu ray ko ku ñuy wax surayx ibnu xaaris jóg ñu ray ko abu zayid amru bnu abdi manaaf jóg ñu ray ko doomi surah biil jóg ñu ray ko ku jóg rek drapeau bi fukki nit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 Talha ibnu Ubaydillah al ansari te ku mënoon ak eh, ak eh, kii la eh, ku juboon ay ak lu muy fett la ñëw mu dam mu mu mu na ñaari xala ba ñetti xala ngir aar yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba di wax yonente bi naa ko bi abi anta wa ummi ya rasulallah jote naa la sama baay jote naa la sama ndey yow yonente bi yàlla bi sahmun ak fett dal mukk naxari duuna naxarik sama dënn bi def naa ko mu yées sab dënn bokk na ci ñi ko doon aar Saad ibn Abi Waqaas yonte bi di ko wax ni ko irmi Saad fadaaka abi wa ummi yonte bi di wax Saad ibn Abi Waqaas naa ko sànnil yow Saad jote naa la sama ndey ak sama baay moom lañ mas a gis ko ku yonente bi jote ñaari way juram moom Saad ibn Abi Waqaas bokk na ci ñi ko doon aar Sahl ibn Hanif ñu gënoon a mën a fett ci la bokkoon moom dafa ba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 noonu lañ ko tawee ay jaasi ba mu faatu ka ko doon taw nag muy ibnu qim am moom nga xamante ne moo taxawoon temm ci ray yonante bi bi mu ko rayee moom Musaad ibnu Umayr la daal di dem ci yéefar yi yooxu ni ray naa Muhammad te fekk ne eh, dafa nuru woon te bi sans moom Musaad ibnu Umayr niru gi mu ko niru woon moo tax bi mu ko rayee dafa daal di yooxu ni inna Muhammadan qad qutil léegi nag jullit yi eh, daal di amuk jaaxle ndax siiwal nañ ne yonent bi sallallahu alayhi faatu na ñu ñi daal di sànni seen i ngànnaay am ñu ne ah ñu ne xaw ma nu ñuy def ba gis Abdullah ibn Ubay mu mu mu nu kóolute ci Abi Sufyaan ndax dañuy daal di jàpp ni moo fi nekkaat ak wéeruwaay bi waaye bi ñuy wax loolu Anas ibnu Nadr mi ngi teew mu daal ni yàlla man de maa ngi lay jéggalu li ñuy def te mooy li jullit di def di di dañ di la ñee def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 xur woowu nga xam ne fa la jullit yenn yi dawoon làqatu fa ba fa àggee ki ko jëkk a xàmmee mooy Kaab ibn Malik bi mu ko la woote ci kaw ni yéen jullit yi bëgg leen yonente baa ngi nii waaye bi junj ni ko noppil jullit yi lool jàqare lañ amoon lépp daal di dañ ngir gis giñ gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam te ginnaaw buñ yaakaaree leen déclaré ne leen faatu ñu daal di toog nag di waxtaanee nga ñaay lañ jëkkoon a am ak ni leen faate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 ñu ne ko lu ngeen lu ñu koy tontu mu ne nee leen ko allahu ala wa ajar nee leen ko yàlla moo gën a kawe te moo gën a màgg bañ ko waxee loolu Abu Sufyaan daal ne lana la xussa wala xussa lakum ñun am nañ am xussa te yéen amu leen xussa yéen tamit ne te ngeen ko tontu ñu ne ko lu ñu koy tontu mu ne nee leen ko allahu mawlaana wala mawla lakum yàlla mooy suñu kilifa te yéen amu leen kilifa Abu Sufyaan la bopp moom lañ fay koo bisu Badar Omar ni ko yemuñ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 mu daal ni waa Quraysh yi eh, bu yàlla defee ma not leen benn yoon danaa mettital ci ñoom danaa leen lii ñu def eh, sama baay bu ndaw bii danaa ko def fanweeri nit ci ñoom. jullit yi bi ñu gisee njàqare yonente bi ak naqaram boobu am ci baayam bu ndaw boobu ñu ne ko bu mu yàlla defee mu not leen de danañ leen def loo xam ni ab arab musu koo def nit ci àdduna waaye nag.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 ibnu isxaqa nett leen ni ka ñuy wax amru bnul jamuh dafa doonoon ku dara dafa dafa doonoon ku dafa làggi woon amoon la lu mag ñeenti doom yoo xam ni dañoo mel nii gaynde ci ak njàmbaare xare yëpp ñu di ko ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi na la dañoo bëgg nga toog tañ dem waaye moom amru bnul jamuh bi ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko samay doom day dañ maa bëgg téye ba du dem te man génn ànd ak yow moom a gënal ndax su sañoon sama soox gii may soox moom laay tàddoole ajal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 ànd ak seen seenu naqar ak seen njàqare euh, loolu yi nag alxuraan wàcc di leen woyofalal naqar woowu di di leen puus ci ak muñ euh, di leen xamal ni leen nit leen dal rek daloon na ñeneen wala tahinu wala tahzanu wa antum na in kuntum muminin leen bu leen doyee di bu leen jàq yéenay kawe yéenay gaje ji ci kanam waaye ci sartub bu fekkee gëm ngeen te ngëm gi dëggu ni leen in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun misluhu lu leen naqari rek lu ñu toll daloon na ñee ñee ngeen di xeexal bu njëkk ca xare Badar wa tilka al-ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas wa liya'lama allahu alladina amanu wa yattaxida minkum shuhadaa laa yuhibbu zaalimiin te bu leen doyee di mukk ci jihaad bu leen jàq ngir leen dal ci nga li ñu leen gane bu leen jàq ngir li ñu ray mbooloo ci yéen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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين mu ne li leen dal daloon na ay nit ñu àndoon ak ay yonent waaye teewul dañoo sax dëgër ni yàlla yàlla na nga ñu jéggal suñuy bàkkaar ndax xam ne ni li dal ci suñuy bàkkaar la bàyyi ko waaye noonu yonente bi bi mu ñëwee Madina mu dégg jullit di jooy ñii di yooxu moom ci jëmi boppam yërmaande daal di koy jàpp ba ay bëtam daal di sotti ay rankoñ waaye ginnaaw bi mu tere nag yëkkat moom dafa doon lu yàlla day bañ sotti rankoñ nag cëpp xol lay bàyyi ko nit ki moomu ko ba di ko tee waaye naafeq yi yahud yi occasion ci loolu daal di tàmbali di yàq lañ ma a yàq lépp ndax am na ñu ne bu doon ab yonent lii ko dal du dal bu doon ab yonent kenn du ko gañe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 إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ngeen bu leen mel mukk ni ñoo ñi nga xam dañuy wax seeni morom naan den bu ngeen fi fii li leen dal du leen dal du ngeen dee te kenn du leen rey mu ni julli di bu leen bu leen yor jikko jooju yéen noonu la yàlla wàccee di wax ak yahud ak naafiq di leen xamal dee moom